y a rien fait xañ na xañ na daa am ñu nekk si ginnaawam di ko ruux xañ na ñu nekk si ginnaawam di ko ruux ndax booy bi yabewu ma woon yii ma yabe nii yabewu ma ko booy bi su ma jàkkaarloo woon du sigi xool ma man du ma moroomam su ma yabee tey la ma yeb man ku ma yeb tey ma yeb bi ma defee accident bi ku ma yeb tey nga ma yeb booy bi man du ma moroomam ñi nekk si ginnaawam nag xam naa leen li ci kanam nag raw li bët buñ ma wax loo su waxee du baax gi man su ma waxee du baax man xam naa su ma bopp su ma waxee du baax ñu nekk ci ginnaaw xam naa la ndax démb yóbbu naa sama benn booy muy bëri ji sama doom maa ngi koy encouragé muy dund mu doon bëri démb am na lu ma wax ci stade ba Assane Ndiaye am na lu ma wax te maa ngi koy xaar nag Assane Ndiaye maa ngi koy xaar loolu ma wax ni maa ci bàyyi xel démb métti la tàngaloon na ma stade non Assane Ndiaye dama ñëw mu ne ma ñun ñëpp ñoo ci ginnaaw wulli su la wulli jàppee ah dina la dóor ba nga bëgg a régler man du ma xool am na yoo xam ni bis bu ko wax jotee wala jëf jot ah su boobaa ñoom si la ñuy comprendre non du question boobu loolu lépp dafa am lu ko waral non non dafa am lu ko waral wax ji daa am lu ko waral te wax wax joo wax jooju jotagul wax jooju jotagul non man xam naa wax ki jotagul du mi ngi wax di ratatati maa ngi koy déglu xaar ko démb tàngaloo na ma sat méttaloo na ma waaye nag maa ngi koy xaar. li ma xam dafa bari de bul ma yëngal barki Cheikh Ahmadou Bamba li ma xam dafa bari ak li ma fekkee dafa bari bul ma yëngal.